daara ji li ko tax jóg moy di leral diine yàlla ji waye diko faxas ak raxas ci lépp lo xamantene bokku ci lépp lo xamantene bokku ci lépp lo xamantene bokku ci lépp lo xamantene bokku ci lépp lo xamantene bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma baad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 mbokk mi ndéggat lii nga xam ne moom la indi muy wax ci ak julli di ca faram fàcce di ca leeral it ay ngëneel ak ay tudd yàlla yu ñuy tudd yàlla gannaaw ga di fésal ngëneel ya nga xamante ne moo aju ca julli googa ak ku tudd yàlla lim yooya te ñu tënk ko ci mbind mi di leerlu ci koo xam ne dafa amoon ay bori julli yu bari yu mu waroon a fay nako la koy wara a fayé lél nak bu déglu Cheikh mohammedou Hadi insha allah dana ci indi leeral bisimilah sëriñ bi. dafa am julli bu ñu waxon rek. baax na kon après ñu ñaan. day laaj. dafa am. julli gu Cheikh na Tidiane yi wax. julli go xamne bëgg na ko ko dégg ku nekk nga fexé di ko julli julli gu bare bare ngëneel la mom ci sa bop man na jang mbollem dam dam yu jitu won ci sa julli nuñ koy defé digënté takusan ak juma muy tusubaar bo julli je juma ba ñëpp ci sa kër avant nga julli takusan nga koy julli mu nek ñenti rak'a waye ben sëlmal lay doon cheikh neena da ngay taxaw nga jang fatiha bu jexé nga jang ayatul kursi ben yoon jang inna atainaka al kawsara bisim ben bu nek and bismillahir rahmanir rahim inna atainaka al kawsara ba saar yu jeex fukki yoon ak juro hmm. so amé ñaari rak'a nga toog taaya waye bul sëlmal nga jugaat indihaat yeneen ñaari rakkaaya jàng ko comme ni nga jàngee woon bii fatiha ayatul kursi fukki innaa kaw kawsara ak juróom boo sëlmalee ba pare nga jàng astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah fukki yoon jàng salaatul fatiha fukki yoon ak juróom julli googu li ci nekk ci ngëneel malaaka yàlla yëpp buñ dajee di ko melal munuñ koo melal ci ngëneel lu rëy li ci nekk te loolu yomb na saa yoo jógee ko ajjuma rek bala ngaa julli tàkku tàkkusaan rek fexeel nga julli ko foofa dana jàng damm damm yu nekkoon ci sa julli yi passé woon yépp te kat Cheikh a ko wax man tamit ci yonent bi la ko jëlee salaa salaam am na riwaaya bu ne juróom ñett fukki xat lay jàng ci julli am riwaaya bu ne téeméeri xat lay jàng kon julli googa laa waxoon mu desee woon laa leer waaye nag laaj gi nga laaj am na ci solo ndax laajaaleel nga ko ñu fi nekk ñëpp su ko defee kenn ku ci nekk jéem koo def ndax fi ñu jëm nag xiiw du fa doy lu ñu la wax ne boo ko defee sa xiiw yokk rek def ko te comme jamono ji mënatuñoo bay lu yaatu nañ bay lu tuuti te engrais ko rek waaw engrais bi nag mooy ngëneel yi ma wax rek hmm. comme bay lu yaatu moom fas yi nangootuñ hmm. suus yi nangootuñ hmm. ndaw yi nangootuñ ko yeboo tuuti sa tool bi rek te yaata engrais ko su defee kon euh, dafa wax ni ak jullee ngi nii goo xam ne dafay euh, defar mboolem julli yi nga xamante ne moom la jullit bi faat moo xam ay julli la yoo xam ne dafa am ay jam-jam yu ca am walla comme nim ñëwee ci laaj bi ay julli la yoo xamante ne dakoo koo faat mu ne ak jullee ngi nii goo xam ne. ab sëriñam moo ko joxe wax ne dees koy julli gannaaw jullik ajuma lu jiitu jullik tàkkusaan bi maanaa kon bisu ajuma lees koy julli ginnaaw bi nit ki jullee ajjuma ba noppi waaye laata muy julli tàkkusaan waaye nag këram la koy jullee ñeenti rakka lay doon ci genn sëlmal mooy nettali ba léegi julli gi nga xam ne nee na ab sëriñam a ko indi nee na rakka bu ne da nga ca jàng fatiha teg ca ayatul kursi yu benn yoon teg ca inna ataynaaka alkawthar ba mu jeex ànd ak bismillahi rahmaani rahim fukki yoon ak juróom boo jullee ñaari rakka yi da ngay toog taaya mel ne kuy julli tisbaar kon nee boo noppee nga daal mottali ñetteelu rakka ba ñeenteel ba bu ci nekk la nga jàng ca rakka bu njëkk ba bu ñaareel ba moom nga cay jàng nga daal di tok taaye ca rakkaab ñeenteel ba daal di sëlmal nee na boo nga wax astaghfirullah fukki yoon ginnaaw gi nga wax salatul fatih fukki yoon ak juroom mune bo julé julli gi bo sotalé nga wax yi da nga am gëné lo xamné ci julli gogou malaaka yépp bu ñu won mënuñu ko melal comme nim ko waxé mune ab sëriñam moko jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na am na ci riwaaye boo xam ne ci ñiy nettali ci sëriñ bi mu jëli ca yonantu ba kon nee na dafay euh, defar julli yi nga xamante ne moom nga julli woon ci juróom-ñett fukki at wala mu faat la bokk comme nam ñëwee ca laaj ba nee na am na sax riwaaya bu ne téeméeri at yi nga xamante ne moom la nit ki weesu et cetera liñ bëgg a wax ci kon ndéggat li moo di ne mbokk yi julli gu mel nii yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam de musu koo julli benn ñaareel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musu koo jàngal xeet wi jot na diine yàlla ji ba nim fi jógee musu koo jàngale amul kenn ci saaba yi kon koo xam ne mas na koo nettali jëli ko ci yonent bi walla mu mas koo julli moom ci boppam te yonante bi sallallahu Alaihi wa sallam mo ne won lu yiw len di jegeele seen borom di len soreele sawara jangal na len ko alayhi salatu wa nga xamne jot li na diine ji bayiwul dara lu bax lu ne mo xam julli la mo xam wor la mo xam leneen lu bax lu meena doon mo xam farata la mo xam nafila la yonante bi te julli gi de bokku ca waaw julli go xamne yonante bi jangale wuko moom ci boppam defu ko musu koo def ay saabaam amul ku ko ci mas a def ñu ñëw ba junni at gannaaw ga ñu doog wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe na wala jox na nit julli gu mel noonu mu am ngëni lu toll nii kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bam naan saaba yi jottali naa leen booba julli gi moom da koo nëbboon di xaar jëmmi jamono ngir mu jox ko kenn ci xeet wi kon la mu ne woon jottali naa gaa yi ne ko waaw kon booba mbir ma demewul noona mbokki jullit yi nañu xam luwaat sunu diine bu baax a baax nañu xam luwaat diine bu baax a baax kon bu fekkonte ne am na julli goo xam ne am na ngëneel lu toll nii nga xam ne malaaka yi munuñoo melal ngëneel li kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam du fi bàyyi ko mukk te leeralu ko te ak julli ak ci façon buñ koy defee nan dang ci ciy jàng lii da nga ciy jàngalee nga jàng ak li lolu dafa bok ci particularité yi nga xamné ne yonent bi képp mo koy xamal xéet wi dafa bok ci particularité yi nga xamné bi rek mo koy xamal xéet wi motax sahaba yi ginaaw bi fi yonent bi joggé amul kenn ku massa indi ak julli nan julli gi boko ko ni wala nga jang ci li wala bo paré nga jàng da nga am li wala ngeene lu tollu ne ngi ci te jëlewuñ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel nii même bu ko kenn ci saaba yi waxee boroom xam-xam yi dañ naan bu fekk bu fekkente ne wér na tukkee ci saxaaba yi boobu dañ naan loolu kon ci yonent bi la ko déggee waaye xalaatu koo wax muy waxi boppam bu dee kenn ku dul ci saaba yi ñi ñëw gannaaw saaba yi ñoo ko wax nag bu ko waxee faw dana wax kan moo ko ko wax ci càllale mu jokkaloo ba yegg ci yonent bi lu dul loolu boroom xam-xam yi dañ naan loolu wax ju ñuy delloo la loola du doon wax ju ñuy sukkandiku ndax càllale ga wérul fama baaluka bu fekkente ne junni at gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam jullit ñi kenn xamu ci julli gu mel nii bis ñëw nit ñëw ne leen yonent bi joxe na julli gu mel nii ku ko julli am nga ngëneel lu mel nii kooka naka la nit koo xamante ne fer na ijji ci alquran ak sunna di ko nangoo di ko jëfe ba pare di ko gëm kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam luy aw yiw moo xam faratala moo xam du farata jàngal na ko xeet wi gépp jaamu yàlla gu ñuy def ca manière ak ca façon ba ca place ba ca lim ba wala ñu boyal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal na ko xeet wi laata mu fi jógee kon ginnaaw bi mu fi jógee lu war nit ñi mooy ñu dellu ca la mu jàngalee tënku ca canam ko jàngalee def ko ci ak cellal di yaakaar ngërëmal borom bi tabaraka wa taala di ñaan yàlla nangu kon mbir yi noonu la war a demee beneen bi mooy ak julli bu fekkente ne dalaa faat wala nga yëg ne am na ab damm-damm damm-damm ba da koy defar fuqahaaw yi ñu jële ci texte yi ñëw ci sharia jàngale nañ damm-damm ci julli nees koy defaree moo xam ci biir julli gi nga yëg ne damm-damm am na wala julli nga ba noppi yëg ne damm-damm am na yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na niñ koy defee boroom xam-xami lislaam ñëw détaillé ko détaillé goo xam ne gu leer nañ la bu dee ak julli dalaa faat benn ngant waral ko wala ngant bañ ko waral bu dee ngant ko waral te ngant li yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeral na ko ci ay xadis yu bari benn mu fekk nga doon nelaw benn nga fàtte ko wala mathalan nit ki julli gi teew muy fekk muy lekk loolu ba nga xamante ne mbooloo ma raw na ko foofu bu dee lekk gi sax wàllu mbooloo la kon julli gi bu la faatee comme ni ko yonent bi waxee muy ngant waral ko lu mel na nelaw lu mel ne fàtte ak yuko ko nuru bu booba saa yoo ko fàttalikoo ci ki fàtte wala saa yoo yewoo ci ki nelaw da koy daal di dem julli yi loola mooy fay julli googa la faat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku nelaw ba julli raw la wala nga fàtte ko nee na waxtu woowa ci sa àq yow mi doon nelaw wala yow mi ko fàtte mooy ba nga ko fàttalikoo wala ba nga yewoo mu ne laa kafaarata laha illa dalik amul dara luy far loola lu dul ba nga ko fàttalikoo nga daal di jóg julli wala ba nga yeewoo nga daal di jóg julli kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam détaillé na ak julli bu fekkente ne dalaa faat naka nga koy fayee te ngànt waral ko bu dee ngànt waralu ko borom xam-xam yi wute nañ ci ndax da koy fay wala doo ko fay ndax da koy fay tuub wala da ngay yem ci tuub rek waaye mënatoo ko fay ndax yaa ko tay ba mu faat la loolu ak wutele ci borom xam-xam yi taxu jóg kon liñ bëgg a wax mooy nit ki buñ ko laajee ci diine dafa war a tontu ci firnde laaj bi ñu ko laaj ci sharia la tontu na ba bàyyi ci lim doon tontu ci laaj bi neewul yàlla nee na lii ci liñ ma laaj néewul yonent bi nee lii ci liñ ma laaj waaye dañuy sama sëriñ moo joxe julli goo xam ne mooy defar julli gi nga xam ne dalaa faat wala julli yi nga xam ne dafa am ay jam-jam ci ay ati nangam aki nangam mu ne ci yonant bi la ko jëlee lan moo xew te yonant bi alayhi salaatu wasalaam boo ñëwee ci xadiis yi nga xam ne moo wér tukkee ci moom yépp doo fa gis lii boroom xam-xami lislaam yi dund gannaawam junni at xamuñu lii léegi kon euh, li nga xamante ne moo war bépp jullit mooy lépp lu muy gëm ak lum dul gëm mu tege ci li nga xamante ne moom la sharia ne lii des koy gëm mu gëm ko sharia ne lii dees ko gëm mu wan ko gannaaw kon lii mooy li nga xamante ne moo ci war di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñu ak dégg ci diine te may ñu ak maandute ba nga xam ne lépp loo xamante ne moo dëppoog waxi yàllaa ko bi yonentam ñu jël ko ak ci kum mën a jógee waaye may ñu it ak dëgër ci diine ba nga xam ne lépp loo xam ne dafa wuuteeg li yàlla wax ak li yonent bi wax ñu man koo wan gannaaw waaye wattandiku loo jaami yàlla yi ñuy gëm lu gëmuwut wala ñuy def lu defuwul te loolu mooy dimbalante ci ak mbaax ak ko ragal yàlla subhanahu wa taala te loolu mooy digle lu baax te mooy tere lu bon ginnaaw ba ko nit ki wane gannaaw lu bon la ginnaaw ba mu jàppee ca lu baax la di ko def yal nañu yàlla saxal ci loolu ba ba ñuy dojeek ngërëmam wassalaamu aleykum beneen bi nga xam ne moo aju ci liñ doon wax léegi mooy bunt bi su fekkente ne wubbi nañ ko bu boobaa diine yàlla ji day sànku bu dee ginnaaw bi fi yonent bi jógee képp ku ñëw moo xam téeméeri téeméeri at la moo xam sax lu mat junniy at la wala lu ko ëpp boo nee yonent bi nee na ma nangam ci aw yiw wu ñu war a def wala lu ñu war a bàyyi te bu ñu xoolee yonent bi ba ko yàlla yónnee mu doon jàngal saaba yi jàngalewul loola su dee ku wax lii ñu nangul la lii bu boobaa diine yonent bi day sànku te lii mooy li nga xam ne moo xew tey ak bu yàgg ba léegi moo di ne ku ñëw daan ne yonent bi jox na ma nangam ci ay xeeti yiw ku ma ci topp da nga am nangam ak nangam tegal ko ay ngëneel yoo xamante ne yu duuf la yu rëy la bu ko defee nit ña topp la ca diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gën a sànku ñëpp manees na mën nañ ko mooy nit ku ne mën ngaa ñëw ne ah ak jullee ngi nii goo xam ne yoor yooru àjjuma lañ koy julli rakka bu ne lii nga cay jàng ñeenti rakka lay doon wala juróom benni rakka wala lu ko ëpp wala lu ko yées boo noppee nga jàng nangam ak nangam nangam bu ne nangami yoon danga am ngëneel loo xam ne maanaam nit musu koo dégg maanaam bët musu koo gis waaye xol sax munu koo jàpp ngëneel loo xam ne moo ëpp feppi suuf si moo ëpp noyyi nit yi doomu aadama masa noyi wala luy dund lu masa noyyi wax ay ngëneel yu duuf danga am yoolu nangam da nga am yoolu nangam malaaka sax munuñu ko et cetera loolu ñëpp mënees na ko waaye ndax am na firnde lu koy firndeel luy wane ne yonent moom ci boppam moo ko wax wala moo ko def wala ñu def ko ca kanamam ñu ñu wax ko mu bako ca loola moom kenn du ko geesu ba pare nit ñi daal di cay jàpp nag xir ca di ca ngar ngari xir gu ëpp ga ñuy xir ci buñ le ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na salaatul awaabiina xiina tarmudul fisaal ñi nga xam ne ñooy dellu ci seen boroom dañuy julli yoor yoor dañuy dellu ci seen boroom ñooñu dañuy julli yoor yoor duñ xir xir gu toll ne boo leen woon yonent bi nee na rakaata alfajri xayrun min ñaari rakkaay fajar moo gën adduna ak li ci biiram allahu akbar te xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale gi mu jàngale diggante gannaaw jullig ajuma nit ki bu paree yonant bi jàngale na nit ki julli ñeenti rakka walla ñaari ràkkaa ci beneen riwaaya ñu ñëw doxale fa ñu ñëw indi julli gu yees gi def ko ci waxtu woowu indi ci ngëneel lu rëy lii loo xam ne day fàtteloo nit ki sax sunna si yonant bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ngir ñu def ko ci heure boobu nga xam ne nit ki da koy fàtte bu ko defee yonant bi moom ñaari rakka rek la wax rakka bu ne nga jàng fatiha ak lu jàppandi ci alquran te indiwul benn ngëneel boo xamante ne bu fés la bu ne ne boo ko jullee da nga am lii wala da nga am laa yonent bi alayhi salaatu wasalaam indiwu ko benn yoon léegi nag yow nga indi julli goo xamante ne moom ne bu ne désigné lañ cay jàng ak lim ya bu nit ki sëlmalee nga indil ko ay adkaar yoo xam ne da koy jàng ne da nga wax nangam nangam ñaar ñaata yoon da nga wax salaatu sàngam ñaata yoon boo paree nag danga am yool boo xam ne malaaka yi yëpp mënuñu koo melal foo jëlee loolu ana yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax da koo xamul woon wala xamoon na ko waaye ndax da koo deful woon wala defoon na ko waaye da koo nëbb jàngalu ko xeet bi ba ni mu fi jógee nañ ragal yàlla subhanahu wa ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala may ñu ak dégg ci diine ndax kum ko defal na mën a ci yow aw yiw wassalaamu aleykum